ma leen ko waxee ren janoog ndaanaan ndaanaan ñoo koy seq moo tax man kese sequma waxtaan bi moom dama am sama naataangoo boo xamante ni moom it elle est pertinente donc dama koy jox kàddu gi rek moom it mu développé ay questions am ànd ceeg Sidi Sidi ko tey dañ koy sot. waaw Tange ko waxee rek nee naa la ndaanaan la ñu te dalal tey ndax ku ñu ne Adji Darou Mbaye mooy sa yaay kooku ndaanaan la ci bàyyee di ndaanaan ci yaay waaye tamit man dafa am lenn lu ma jaaxal ma bëgg ci waxtaan ak moom parce que Sidi ku la xam-xam ne ah, doomu géwél nga donc musique dafa nekk. ci sa deret donc c'est très rare nga gis euh, doomu géwél di jangi way yow nga dem wat way jang ko mokal ko lol ba ñew diko pratiquer ci mim rew lu waral lol. Wa li ko waral c'est c'est juste que euh artiste euh do mokal comme wax toujours da nga war di jang tout le temps tout le temps parce que li nga xamni mom moy mooy sunu sunu musique li nga xam moy sunu mélodie pentatonique yi lolou dafa nek ci sunu deret lolou

parce que pour moi, enrichir li nga xam évolué, évoluer mooy euh, euh, est-ce que je xam relation avec artistes sénégalaises parce que c'est très rare que gis artistes. soient soirée, fa man man euh, relation bu nice la am sérieusement relation bu nice sama naataangoo yi ñu Je may waaw awma ci kenn xaar ma yàlla waaw ku ñu ci ne bu nuy déggantee danañ nuyoo danañ dégg danañ jàmm sante bu ñu tasee danañ dañuy mel ne ay magarak euh, lenn rek mooy moom laa dul def mooy comme je dis toujours euh, du ma du ma xatal kenn guddeem waaw man duma ma buuxante ci guddi kenn foo ma gis rek parce que dafa am lu ma fa indi donc mooy ni que borom bis ba da koy damay sentir ni ma kat Sidi dama bëgg nga ñëw ci sama soirée wala nga ñëw sama bis parce que loolu loolu ça se passe comme ça wa donc bo mo fa gisee loolu mo fa yobbu fo ma gis rek. invité wu rek do dem euh bon du du question loolu mën na am na ñoo xam am na ñom confiance mën na ñëw siif mais do doo wu ma nonu man damay baaxee ni ga nit ki boko ko rek dang ko dang ko ni ko boy kat boy jaaral tay soirée wala ñëwal soirée et tout cela nga ñëw soirée mo invité la présenter la nga yëg def sa sa participation def sa touche. xam nga ngeen kafre musicalement ngeen dem parce que c'est ça ah waaw foo gis euh, gis nga gës dafa am solo gës euh, parce que ku ci ne mu doon artiste bu ndaw beeg bu mag beeg bu màgget beeg bu bu jeune bi ñëpp a ci am échange euh, boobu dafa am solo waaw parce que da ngay jàng tout le temps da jàng ci moom moom dana jàng ci yow tout le temps bul nii rek ki jeune jeune talent la rek mënu ma jàng ci moom non chaque jour mën nga jàng ci ku ci parce que àdduna moo demee noonu ku ci ne am na loo yàlla may waaw ah, donc loolu la loolu rek mooy tax boo ma gisee ci soirée xamal ni voilà dan maa invité ma ñëw fa. Euh, parmi tant d'autres artistes gis nañ ne yow tamit euh, Nouvel An bi yaa ngi ko terminé en Gambie pourquoi le choix de Gambie. waaw Gambie moom xam nga Gambien yi dañoo bëgg Sénégalais yi ci domaine boo xam ni. Euh, lépp lu ñuy lu ñuy def rek ñoom dañ ni ciy boole parce que nag dañ ni Sénégambia waaw donc ñoom euh, ñu doon ñoo xam ni buñ fa demee dañ ñuy dañ ñuy taatagal dañ ñuy teral waaw dañuy dañuy dañuy jox suñu wàttu wàccuwaay vraiment teg ñu fu kawee donc mënuñoo def lenn loo xam ni dañ leen ciy tëb loolu moo waral. décembre bi du man rek artistes yu bari je pense que défilé nañ Gambie ren ren euh, noonu lay démé chaque décembre dañ ci am pratiquement tous les artistes danañ fa rombu def sen participation ñëwaat wa donc lool moy waral daw ma ngi fa euh wa Diaspora Club ñom ñom contraté won ma nekkoon fa man ak Assane Ndiaye on on avait fait trois dates ren aussi la la même chose le 1er janvier fa la jouer donc voilà ñi ngi préparé ay yenen bagage yo xam aussi Gambie la donc c'est comme ça parce que fofu am nañ fay soppé am fa ay am di jàmm am fa ñu xam dañ no safo donc euh, motax ñu fay dem c'est ça. D'accord. comme ni ngeen ko déggee né na la ndaanaan lañ toogaloon té yaakaar na né contane ngeen lool ci waxtaan bi ñu amaloon nak sidi Samba euh, Sidy l' tire à sa fin mën nañu xam lan ngay tejé waaw li may mom moy mooy euh, remercier leen rek vraiment parce que li aussi dafa am solo comme liko ko temps zone rek communication dafa am solo. Euh, ñun li ñu am rek mooy way composé teg ko mais le restant pour mu jàll yéen la donc euh, dañ leen di jaajëfal rek ñu dem sans yéen ko di leen jaajëfal di aussi remercier sama soppe yi remercier sama am di jàmm yi vraiment di di leen wax ni que je serai toujours là waaw du ma leen mës a décevoir parce que ñoom ñoo ma def li ma doon tey donc maa ngi leen di remercier de passage di leen wax ni ñi projet yi ñuy nekk yëpp ñun ñoo koy ànd wa parce que Sidi sa mënul dem sans ay ay ay am di jamba mënul dem sans ay sopem aussi di sakku ñaan parce que c'est important di sakku ñaan ci yi nga xamni ñom ñoy suñu kilifa diiné yi di sakku ñaan ci nga xamni ñom ñoy borom barke yi di sakku ñaan parce que euh, ñaan ci la ci la lepp xatch wa di ñaan jamm ñaan yalla musul set Sénégal aussi jamm yàgg fi wa jamm yàgg fi sama yaay yalla may ko gudd fan ak wér waaw ndax euh, waaw moom waaw dafa nekk dafa waaw waaw moom moom waaw xoolal yow dundal rek waaw di ñaanal ñi ñu jege ñëpp waaw di ñaanal ñëpp ñëpp ñëpp ki nga xam képp nga xam ne rek jël nga sa xol daf ko ci Sidi Samb maa ngi lay ñaanal mucc gudd fan waaw ak xewal gu baawaan saawaan waaw di kontaan rek di wax ni voilà mention spéciale à No Africa Production euh, di nuyu sama musicien yëpp nag waaw ñoom fàttewuma leen Euh, di nuyu ñi jàpp ñi jàpp ci album bi voilà di wax ni que léegi rek incha allah bu soobee yàlla jërë ngeen jëf.